ba sànni ko ndànk moo la ngi for galaas gi di ko génne géew bi dafa ngi noonu arrière kaay Bamba Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu Sène bu si nga Eumeu Sène si nga kaay Bamba Samba jëlal Eumeu Sène xoolal rakk ji garam bu la sol rakk ji aca Aliou xool Xaadim Ngom li mu sol xool Xaadim li mu sol xoolal li Xaadim Ngom sol Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu a ngi noonu kiloot la sol tey tey dellu na cosaani séeréer dëgg rakk jaa koy sotti bamba rakk ja farus rakk jaa koy sotti rakk jaa koy sotti di wax ak moom xaadim a ngi koy sotti wax ak moom xaadim nga ma ngi koy sotti wax ak moom xaadima ngi koy sotti wax ak moom ama reena oh ama seen reena ama seen reena ama ngi ree bamba bamba foo nekk ama heure bi wax bamba nekk ci ama ngi ree ama ama yaa ngi ree tànde ama seen a ngi ree Eumeu ngoog oh l'homme de taille Singa roi des arènes naan na ca butéel ba Eumeu Sène li muy naan kay Bamba yéem na ma ndax buñ la ko joxoon di nga doo ci naan a ah, war nga cee mën a naan de am na butéel buñ koy sottiwaat am na luñ koy sottiwaat Bamba Aliou Seera sa ngoog Eumeu Sène ànd ak Papa Ngom mag ji ak Khadim Ngom Khadim à gauche wala boog Khadim à droite Papa ñoo ko wër mbokku ndaye koy jur waaw waaw Eumeu ngongu day ree rek Eumeu day ree <laughs> day ree rek day ree rek day maa ngi seen Doudou Sané maa ngi nii taxaw laa ilaha illallah Habib Ndiaye ngongu koo koy Habib Ndiaye kii mooy Habib Ndiaye dañoo yàgg waaw parce que bu na fii du doo noonu le roi Sané yor benn bi jënu kooba le roi Sané coach su Kandji coach ki loone coach su tey da ngaa xeex si wala da ngaa bëri. bu ci ubbeeku rek nga def. ah bu ci ubbeeku rek nga utiliser ko. waaw mais loolu la lépp lu ñu war a ñëw ñu faral ko lépp lu ñu war a wala pare booy bi liggéey li mu war a liggéey yàlla suñu borom moo si def ñu ko ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu kon xeexu Tapha Tine tey mënut a jaaxal Eumeu Sène ci làmb ji. man ngay waxale tamit waaw loolu jaaxle na danga moom day taxaw ay geste di ko mu koy laal ak ay amabal di laal di si Eumeu Sène nekk si adversaire yooyu di ko doon am ñu doon am adversaire ay mos ay morceau yu vert bamba yaa ngi xool morso yu vert yi mbaa yu vert ay morceau yu vert waaw kañ koy def loo ay étirement waaw lii mooy da ngay teel a sa yaram bamba xaadim a ngi noonu waaw waaw man de xaadim li mu sol sax xaadim de li mu sol garaaw na lool xaadim xaadim ci loon xaadim li nga sol ni lan rek la sol eh, ndaw xaadim nee na ndam la sol waaye sol ndama neex saa bokkal nee naa la kii mooy bras droit Eumeu booy wër bras droit jàppal saa bokkal laa ilaha illallah kaay bamba xës maa ngi lay ziar. maa tay ndax du ko Salick. am nga jàmm. waaw yàlla bu mais tey Djigo dama gis sànq bi ngeen di dugg dama am lu ma seetlu da nga des ci ginnaaw ama seen gestu insisté na sama code su la day dugg na dugg. mu mel ni nga dugg amal na ko importance lool ci bi. waaw dafa yàgg man moom depuis bul faale ba tey du tey man ak moom waaw. loolu moo waral loolu. waaw parce que comme waay coach am man it muy suma mbër. rafet na fu mu taxawee rek geesu gis si man gis si moom. mais waa ji mën naa ni lu leen jaaxal tey Tapha waa xam nga lamb lamb la rek ama seen li ma koy wax toujours moom laay waxaat war na fas war na mbaam buruxlu na gaynde kon waa ji waruñu mën a indi lu ñu mën a jaaxal. dara jaaxalatu ko daal non non non non seen champion d'Afrique la